Notre-Dame de Wakam. ci biir nag turu la Vierge Marie di ndeyu Yesu Krista ak jikko yu baax yemu mu ràngoo rekk lañuy ñuy bàkk ci biir église bi. chorale bi di wéy di xumbal bis bi ba sax berse fidèles yi ñëw ngir teewe ko. noonee nag la vicaire bi di ñu xamal ci solo ak tolluwaay bés bi chrétiens yi tey am nañ mbégte bu rëy a rëy ci àdduna si sëpp di xumbal li nga xamante ne mooy assomption Mariama itam yi nga xamante ne moo jur Yesu Krista moom itam xamul li nga xamante ne mooy yàqum yaram ndax mu mun a euh, nekk ci wetu Yesu Krista suñu borom ak doomam ren nag mbokku catholique yi lañu leen sas rek mooy ñu jox gëdd li di julli ak ñaan nañ chrétiens yi gën a takku ci Mariama wala jàpp ci ñaanu euh, ñu ñaan Yesu Krista dañ koy jaarale ci Mariama mi nga xamante ni mooy yoon bu gën a gàtt moo moo tax chrétiens yi tey dañ leen di ñaan di leen ñaax ndax ñu mu gën a euh, sawar ci li nga xamante ne mooy ñaan parce que damay faral di naan chrétien bu dul ñaan wala nit koo xamante ne doo ñaan dafa mel ni garab boo jëmat te doo ko arrosé doo boo ko roosewul garabe dina de tey nag lu ëpp téeméer ci ay fidèles ñoo ñëw rek ci mees bi ñoom nag lañuy def rek mooy di bàkk ak sargal ki waral bés bi di Mariama mu sell mi. kenn ci ñoom di fasal mbégteem. am nga mbégte bu am sax. mun moo ko exprimer c'est l'émotion bu ñu commencé euh, tagas rek la taw bi daanu yéen ñëpp fekkee ngeen ko te loolu lañ doon ñaan yàlla taw na taw bu métti donc Marie dafa nekk ku nga xam ne mooy moo ñuy intercéder suñu diggante moom ak doomam Jésus te ñun Jésus Christ doomu yàlla la ci ñun ñu fàttali ni rek bi xewum diine di feetum Assomption dañ ko tënk ci dogmu catholique di firndeel yéegu la Vierge Marie ou Mariama di yaayu catholique yi ci asamaan si moom mii di Mariama mu selli mi di ndeyu Yesu bi nga xam ni rek mooy ki nar a jàppale jaamu catholique